góor buy xeesal moom lenn rek laa ci mën a wax. li ma mën a wax léegi man ak góor ñuy xeesal benn la ñëw. non duñ tëye jabar parce que yow imaginel soo xatalee sa jëkkër xatal ba mu xat gën laa xatal ngeen ànd di dem duñu xàmmee jigéen beeg góor bi. gas pax bu mu xóot rek tëmbal ci biir rey mu dee loolu rek laa mën a wax. <laughs> yóbbu luñ leen dara daal donc luñ leen mën a yóbbee mooy qualité bi mooy lu sol solin bi ak jëfin bi mais benn na ñëw benn la ñu nawloo ma leen daal franchement. nawloo ma leen. léegi ñoo ngi sol solu jigéen sooy seetloo sous-vêtements yi ñuy sol ñoo ngi koy sol yaa ngi dégg tubéy déchiré yi ñuy sol jiin yu xat yi pour lan loolu tamit nañ ci wax li ñuy jël di rocc seen tuñ yi pour lan ah dafa ñaaw wala soit ñuy jël ay lipo di diw seen tuñ yi wala soit ñuy crayon seen sufu bët yi loolu pour lan la nag tamit ay make di màcc tuñ di sarme ay jigéen dafa ñaaw. nañ gas pax rek tëmbal leen ci maa bañ góor bu mel ne góor daal da ngay def da ngay saf góor def jantal. waa dëgg neexul xaw a tàng tuuti nekkul jigéen boo gis rek yaakaar ni yow war nga koo mën a aaki moo aduna du noonu jigéen ñëpp nag yamuñu. wala man damaa bëgg man góor guy sol lu bàyyeeku loo xamante ne bu sa sol solee jiin nga sol jiin dinañ dinañ dinañ xam ñaan ñii ku góor kaa ngi ku jigéen kaa waaye boo xatalee mu xatal foo leen jëm benn batan ubbeetoo ko ba xàmmee euh, tubéyu góor ka ku jigéen ka ba di jigéen yi sol góor koy sol da ngay dem pensay bu fekk ñu def seen baat yu baa ah yow yi nañ ci wax nañ ko kaas. suñu borom daf ñoo dimbali parce que Sénégal dañoo war a sant yàlla man mii laayeen la fii ay mag yu baax fi nekk. ku mel ni Seydina Limaamu aley salaatu wa salaam mam borom Touba waa kër Bu Kunta Ndiassane waa kër Baye Niass kon war nañoo mën a jomb lii ndax ñun yàlla moo ñu dimbali kon suñu dëkk bi dëkk bi ñu nekk dañoo war a lutter contre góor ñi nga xam ne doo comprendre daal xaw ma ay jigéen lañu xaw ma ay góor lañ mais instant bi daal axlu zaman lañ nekk di nga gis lu ne li si kanam nag rawu libéré yal nañ ci yàlla musal ci loolu. nangu yooyu ah, xam nga fii ku nekk ak sa guu tamit mais su ma gisee jigéen buy nangul góor loolu góor buy xeesal affaire yooyu noonu man damay jàpp ne ku jigéen kooku matul nekkul nit ku mat parce que jigéen balaa ñu naan jigéen da fekk góor bu bàyyi faale dëgg neexul yërëm jigéen di sol solu góor des fois nga def xam nga sa abazanzo bu baax mais góor buy xeesal moom nag bu ma gisee jigéen bu ko bëgg rek dama naan ah kooku daal mat naa doon jigéen dese naa doon jigéen daal tamit kooku dafa matadi war nañ ko